salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal yéen ñi baaxoo seetaan 28 pro tey nag ñi ngi fii ci nga xam ne mooy euh, Lasga borom na ma yàlla baal borom defati naa xale bi xew ci jamono from Baol <laughs> Lasga ñu ngi leen nuyu. waaw maa leen di fay maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di ziare ñëpp di baalu àq ñëpp ah euh, di nuyu sama waa fan bu baax a baax a baax parce que ñoom lépp ñoom la vraiment aw ma seen fay. lan ngay préparé. waaw ñi ngi préparé bis bu rëy muy le 24 décembre waaw le 24 décembre sax damay wax ni ku bëgg gis lancement bi na ñëw suba 24 novembre. ñi ma àndal ñoo man bis mooy waa Fanta Club gaa Gaby ndax euh, ñoo la dooleel ñoo la may xel mu dal en même temps ñoo la kàttanal ba xam ne tey jii lu lum lëndëm lëndëm instant bi man damay xuus jàll xam ni li ci kanam moom lépp jàmm lay doon. loolu rek te ñoom ñooy woote ñooy def lépp ñooy jël seen moyen li am lépp ñoo ko ciy def. man li ma ci am mooy ñëw rek taxaw waaw loolu daal la. macha allah comme ni mu ko waxee li lim ci am mooy ñëw taxaw jàppale ñi nga xam ne mooy waa Bawal jàppale ñi nga xam ne ñooy fan su këlëbam ndax nit boo jógee say mbokk jóg say xarit jóg say am di jàmm jóg kon mënatoo leen fay las gaa dañuy dikk ci jaar-jaar yi bu ñu bëggoon a xam say jaar-jaar euh, ci milieu bi nga xam ne ma milieu art bi lan nga ñuy wax. waaw jaar-jaar yi maanaam yomb na jafe na tey jafe na maanaam ñaari jafe mi ngi ci ak benn bu yomb tuuti. ndax lu yomb sa xëy naa ni dan nga ci tudd noonu rek mais boo xoolee tey ñun fi ñu jaar jaar nañ fi ñu war a jaar jànge nañ ñëw yàlla xëy ñu ci millier bi ñu nekk ci mooy rap bi ñuy def muy rap waaw. biñ ci dalee nekk ba léegi na dëgg yàlla dañ ciy gis lu neex dañ ciy gis lu naqari mën naa ne la instant liñ ci gis lu neex moo ëpp luñ ci gis lu naqari c'est parce que boo nekkee ci benn mbir nekk ak say nawleen di ko def ñëpp jox la cër ñëpp respecté la saa boo nee dama ni ñëpp déglu la. kon dama yaakaar ni loolu lu la yàlla may la ok kon ma xam ne am na jafe-jafe am na tim lu xaw a métti tuuti jafe-jafe mooy léeg-léeg damay gis loo xam ne naqari na ma trop ci àdduna moo war wax mu leer na sama baat àggu fa loolu su ma gisee toujours dafa may métti waaye est-ce ñu <coughs> mu yàqoo waaw jamono ni mu yàqoo moom jamono dafa baaxoo yàqu mais nag jamono ni mel toujours nit ñi ñooy mel noonu jamono na ko yàlla bindee noonu la mel ba léegi nii bu amee lu ci changé rek ñun ñoo ko changé xam li ma la loolu ñu naan suuf bu jotoon bu sutantee dañ koo jal dama yaakaar ne kenn ku ne war naa mën a xam sa bopp delluwaat ci sa bopp ba xam yow yaay kan xam yow yaay kan mooy danga juddu fekk sa ndey ak sa baay ñaari góor jur la kon yaakaar naa boo juddee war nga leen a ñetteel jëm a xool ñoom fan tegoon seen tànk léematoon dem pour man normalement ci lu ñaaw wurta mën a am tey te gisuma lu fi jar ñuy daw ba daanu ba yenn itam di leen dal lu mel ni ci réseaux sociaux yi dama ci gis loo xam tey jii daf may naqari torop torop torop torop mais mën naa ne la amu fu ma ko joxee li ma mën mooy bind wax ci te ni ma bëggee ñëpp dégg ko mënta deme noonu c'est parce que daanu dajul suuf te su ma sañoon su ma waxee ñëpp danoon ko dégg te it xale yu jigéen ñi ñoom itam gën a xool fi ñuy teg seen tànk ndax boo xoolee ma Musaaka am na lu mu ci waxoon de nee na jigéen dañ koo bind ci faar gu dëng te faar gu dëng xam boo ko jubantee da nga koy dam mais nag dañ nga ciy def li la war moo tax ma ni jigéen li ko war mooy ni bokk ci wet baaloo ko mooy ñu saaf ko yàpp ko muy xet te yaakaar naa loolu kenn ku ne war na koo daw. macha allah comme ni mu ko waxee muy loo xam ne jigéen ñëpp war nañ ci bàyyi xel muy sama moroomi jigéen yi ndax ne naa leen la ma leen ko doon waxee naan la jigéen mooy yaay sa jigéen mooy kilifa jigéen mooy lépp ndax la koo xam ne yaay njëkk ci kër ba defar njaboot ga tey ñu baax kon jigéen dafa war a jubal ndax nee naa la képp ku xool sa ginnaaw yaakaar naa di nga gis lu ñaaw wala nga gis lu bon bu ñu rafetelee rek sellal yaakaar naa ndam rek la ñuy am ndax boo xalaatee tey ñun ñooy jur ku baax ñooy jur ku ne kon nañ góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ci li nga xam ne mooy sëy bi nañu góorgóorluwaat ci baax a baax li nga xam ne mooy société bi yéene fee jur ay njaboot yu baax ñi ba pare na ñu suturaal jigéen ñi xam ne ñaar loo gis lu ne ñaar koy seq bu kenn ka weeree morom ja rek ñaaw na kon ñaar ñi ko seqonte ba muy neex bu naqaree nañ ko muñalante euh, sa yàlla rek tax las kaa gis nañ benn sa morom benn rapport boo xam ne mi ngi ci Touba dafa mel ne wax na ci mi ngi naan vocal naa la nga partagé euh, naa sama téléphone nga nga craqué di changé sama mot de passe ngir lan suturaal ba kon daal ni ñu suturaante ci yàlla tax lan ngay wax ci sutura waaw sutura moom ku ko am ñu ñaanal la nga dem c'est parce que loolu ngay wax sama benn xarit moo ko def muy Moses ak euh, Baydos yaakaar temps ñoo def benn son boo xam ni démb ci guddi la génn mais son bi frappé na ñu bëree bëree bëri bëri bëri waaw c'est parce que mi wax ni appel naa la nga enregistré mu message la nga capturé ko te ne ñu ci bëri léegi boo leen defee PV dañuy toog ba ci mbooloo ñëw def ko fa ñëpp di ko dégg te boo juumee benn sax ñoom xalaatuñ pour ball c'est parce que yaakaar ñëpp ko bëgg fii fii koo fi gis rek am na loo xam ni tey ji bëggul kenn xam ko lan ñu rawee lanu mag ñi rawee woon dem sutura ci la bokk ndax nit dara daan na sikki ci moom ci biir kër gi nga nekk ba nga xëy dee doo ko xam doo ko dégg te naa léegi amatul sa boobu bi ngay gën a wóolu tey ji da ngay benn erreur àdduna bépp xëy jot ci nga boo xam ne tey jii dama koo denc hmm? kenn xam ko te ki ko xam ku la jege lay doon bu paree àdduna bépp jot ci te yaakaar naa loolu nekkul sutura macha allah comme ni ko sutura sax nag moo tax mu sàkk guddi gi waaw dafa leer ah doy na <laughs> macha allah comme ni mu ko waxee rek ñi ngi ci ñi nga xam ne mooy fans club Lasga te seen nekk fii tey waxtaan ak yéen ci biir waajal li nga xam ne mooy la 24 décembre à théâtre Verdi bu Mbàkkee ne naa leen loolu du yomb ndax ne naa la doomu Bawol moo xewle muy Lasga faaw ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñi ngi ci fans club bi lan la ñuy préparé bis boobu noonu ndax nee naa la Lasga bu demee ba am fit songu théâtre Verdi bu Mbàkke ñii ñoo ko jàppale muy ay xale yoo xam ne dañu jàppale Lasga soutenir ko fu Lasga jógee bu ne ñu ne aca maag la ba baa muy pare boo ñëwee heure boo ñëwee ci programme di nga xam ne fans club bi taxaw nañ góorgóorlu nañ jàpp nañ ci di ñaanal ki nga xam ne mooy Khady Diop bu lasgaa di waaji sëy di ko ñaanal naan ko sëy bi yàlla na barkeel ci barki Seydina Mouhamed ñu daal di wax ak ñi nga xam ne ñooy fans club bu lasgaa rek ñu wax ñu nan la ñuy waajalee bis bi euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna Amine Ndiaye. ginnaaw bi ñu la nuyoo la rek lan waaw salaamaaleykum waa 28 pro maa ngi leen di ziare di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal fans club bi li may njëkkee mooy la 24 nekkatul yëfi Lasgar yëfi fans club bi la yëfi Bawol la ndax las Lasgar moom mënul dem sans Bawol tey aussi mënul dem sans fans club bi ndax heure bu geesoo fans club bi rek lay gis li ma ko doon wax rek ni ko ins bi ñu li ñu la sas mooy nga nga nga tëdd nekk ci sa nga tëju nekk ci sa liggéey affaire organisation bi yëpp nga bàyyi ko ñun ndax ñun li la li nga xam si ni war nañu ci rek dinañ ko def. instant bi kon mën naa ne la li leen desee bareetul ndax mën naa ne la buñ ne la bareetul nan nga leen di xam nga loo gis rek mbooloo moom moo ci dàq te li am fii dafa jafe li am ci groupe bu fans club Lasga dafa jafe ndax dañoo doon benn. te olof day wax ni lu benn man ñaar ñaar moo ko rawatina nag lu mbooloo song ndax Lafenkaat képp ku yaakaar ni maanaam dana mel ni bii paase rek maanaam nu mu meloon rek dana dana mel nu ko raw. non loolu waxutuñ ko dépassé nañ foofu noonu. <laughs> man xale les gars dañu xajam ma looloo ma jaaxal ci ñoom. non dañoo dépassé foofu noonu comme ay ñun luñ xas jaar rek jàll nañ ko li ci suñu kanam lañuy lañuy lañuy xool. Hmm. tey dañoo bëggoon lu ñu def bii jàll benn fukkam la ñuy def bii nii nii ak nu mu nu meloon rek neexaay baa xumba xam nga es da dama dégg nga wax naan mag ñi mais es bii mag ñeeg paayeeg ñëpp ñooy waaj la 24. Mm. te xam naa ku yeex ku ne danga bëgg dugg te doo dugg. waaw bii moom ni muy demee rek comme ni mu daan demee euh, li ci gën mooy ñu teel koo wut comme ci ñi koy jaay ndax bu yaakaar naa fee moom boo ko wutul ci ci ñi koy ñi koy ñi koy joxe nii. pour nga am ko fee du du yomb ndax euh, gars yi ni ñu jëlee le 24 ren bi moom mosuñ ko jëlee noonu moom bay 1000 francs la euh, bu fekkee ne fee nga ko wutee nag 2000 la waaw jour bi 2000 la. waaw di di di di soññewaat rek ñu gën a bàyyi xel euh, li ñu fi dajale xam ni kii mënuñ ko fay ñun lépp loo xam si def nañ ko ngir lasgaa rek taxul ñu taxul ñu fay ko ndax moom daf ñu taxaw fu ne. ñu waajaat le 24 xam ne bis boobu rek lañ am ñu fas yéene cee def lu lu raw lañ defoon lool rek laay la loolu laay sant suñu waa fans club bi muy góor ak jigéen ma ak ndaw waaw te ñu di woo nag bawal di woo Sénégal di woo monde entier ñu ngi woo Sénégal di woo monde entier ci lan ci le décembre mooy bisu lasga boobu nee la ki naa mooy borom a la du yomb xale yu bawal yi ñi ngi ñëw sa nee naa la bu ñëwee baax bawal la jëm si kon xam leen ne lasga mi ngi seen kaw lasga ay coow lan ngay wax ci li nga xam ne moom la sa doomu ndey li nga xam ne ñu ngi ci club bi loolu la ñuy waajalee bi waaw bis bi moom daaw bi ñu pare yaakaar naa bi ñu xiyaatee lañ ci nekkoon ba tey jii kon yaakaar naa Nouvelle Isi loolu gars yi naan du yomb yaakaar naa du mën a yomb c'est parce que problème PV yooyu ngay wax affiche yi yëpp tegu na à côté léegi ñun moom li nu war a li ñuy xaar mooy bis bi jot ñu ñëw wane li ñu mën te yaakaar naa buñ ci àggee rek ak jàmm ñëpp dana xam ne lépp dëgg la waaw. xam ne ah, foo foo mën di nekk rek mën nga koo am foo mën di nekk ci Sénégal gi mën nga koo am léegi nag yàggatul dinaa la jox yeneen numéro mais instant bii ni moom dafa am lu tuuti rek luñ ciy xaar waaw mais instant bi moom bu pare foo waaye ko déglu rajo da ko dégg ko xool ci réseaux sociaux yi da ko gis foo mën di xoolee da ko gis maanaam boo dee déglu picc sax dañ la koy jox. <laughs> ma a salaam yéen ñi baaxoo seetaan 28 pro nii lay demee incha allah ak Ami Ndiaye leen di yomb lii c'est la famille la nii rek demee du yomb mukk ak 28 pro ñu daal di indi kane. Euh, soxna si maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay ziyaarewaat bu baax. soxna si ñu la nuyoo nga tey jii nga ñëw ci réunion bu Lasga euh, bon ñu ngi leen di ziar avant tout di rafetlu accueil bi ngeen ñu dalal ci fans club Lasga mën naa c'est la première fois ñu ñëw fi gan lañ fi donc. kër gi yàgguñu fi te tamit dañu tijji seen kanam juste rek ñu am beneen direction muy le 24 décembre ñu koy prêt bu baax. lan ngeen waaw nañ koy pré moom lenn la chaque jour ñuy déggante ñam euh, benn méthode de communication bu ñuy def tamit li koy jàllale kanam muy affiche ak bu ñu mën di def muy statut comme genre vidéo yëpp rek pour ñu nekk benn gën a jàllal affaire bi kanam ñu nekk benn. waaw maa ngi lay fay Ami Ndiaye. waaw waaw waaw waa fan si club Las ñoom ñëpp ñu ngi ñuy toog. ku ñu ne jàkk xam ne li ñuy préparé le 24 décembre du yomb te man Thiatou Loss ga maa la xam la le 24 décembre dina mel ni Pacaacoo barki Serigne Béthio du yomb de waaw waaw ëpp na. yéen ci xale yi jigéen ci wàllum solu sañsee lan ngeen ci préparé ak biir yi nan ngeen di def pour man ko jaay fépp te yaakaar naa bisu Loss ga ñëpp dañu war a jot ci biir. waaw xam nga daaw fan si kër Loss ga dañoo yëngal ba képp ku ne ku tëll. dañuy xam ne carrément ñii ñooy waa fan si club Las Galle parce que dañu ote soon ay tiset yu nice nekkuñu fa di cambar cambar nekk fa ñu nekkuñu fa di dugg ak a génn mais tey jii dinañ defaat ote si tiset yi képp ku dugg si bunt bi dina xam ne carrément fan club Las a fekk fii ci euh, réunion fans club ne Sey Badiane ak Fatou Fall ñooñu nga xam ne maa ngi ñoom démb lañ bokkoon ci foofu nga xam ne mooy Yette TV euh, doon fa liggéey liggéey bu rafet macha ba xamante bi a law ba xamanteeg Las Gaañ kon ñu ngi leen di santaat rek ñoom bi daal di laaj. waaw sama diggante ak ñoom moom kooku leer na moo tax dama leen di woo xam nga ñoom ni leen di wooyee ak ni ñu wooyee yenn gars yi des xam naa du doon benn <laughs> waaw moo tax ma ni sunu bis la meen 24 deuxième édition toj kaaba noonu xeen ci wak réel édition salaam ñu nuyoo jàmbaal de forum respect triple XL maxi teeb yi giif la respect jàmm la kaay woote wuy si ni ñoon jàmm laay jomba defaay sapor si daay mën di ñëpp laay woote ñëpp talmu tàkk ak suñuy flambeau espérion ne feegu gém bi inspecteur Colombo oh. saare ka loolu wooyee sama gars yi ñoom danañ ma gën a nëw <laughs> macha allah gis nga ni mu woowee gars bi nee naa xam fan mooy fans club Lasga nga gën a woote àdduna bi yëpp ñu ñu préparé 24 décembre xam ne naa fans club Lasga bi di nga fi gis ku nekk Italie di nga fi nekk gis ku nekk Espagne mën naa ne partout dans le monde ñu ngi ci fans bi kon nan nga leen def ci sax boo fi ñëwee da ko fa gis incha allah léegi man li man fi nii daanaka sama xol dafa sedd man bu mu amee ñu may sant waa fan fans club bi la su mu amee ñu may gërëm tamit waa fans club bi la ndax doo lay jël ndox la te yaakaar naa lii lu dëgg la boo xoolee nekkul tey nii lañ koy defee di def suñu social lépp mu ngi fi biir ñi ngi tey ci biir ak ci biti bëggoon na gars yi gën a jàppaat te xam ne affaire bi nekkul nii lasgaa rek la lii ñëpp a ci xaj te lépp ñëpp la lu nekk ku ne mi ngi ci biir waaw di leen gërëmaan nag di leen santaat bu baax a baax tey bu ñu fi jógee bu subaa am na ci groupe bi koo xam ne tey ji dañ koo maye muy xadi suba mu la def réception 24 novembre te suba ñun ñëpp fa lan war a yendu jàppale ko ci bisam ma nga xam ni fan sa kërëb loolu lay jëriñ kon na yi ñi ngi woowaat ñëpp di soññiwaat ñëpp di wax ni woonoon ñëpp daal comme ni nga ko waxee ci son bi xam naa ne ko jàllale eh, ñun woonoon ñëpp woonoon ñëpp bawuñ kenn te bii rek li ci doywaat mooy dañ ko jox suñu mbokk comédiens yi le Bawol ñoom lañ ko jox kon nag na ko gaa yëpp déggandoo xam ne ko ko dégg mooy sa lettre waaw lépp déggoo li ma la wax fa ne comme li kii wax rek sabaru sabaru loolu lay doon jeex na <laughs> macha allah comme ni ñu ko defee di sant di gërëm bu baax a baax yéen ñi baaxoo seetaan 28 pro di leen santaat bu baax sa naan leen sañse bi ki ci génn say bajaan la mi ngi si sama ginnaaw dama ne ko damay defal lasga émission bu ñëwal ma robb bu bi jox ma kon macha allah maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sanaan la sama borom kër boobu muy Seydina Omar di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér sanaan ko naal taal su ma melee ni nag yow la maa ngi sant bu baax di leen gërëm sanaan aawa buru kon jaajëf sant ak sant ak ngërëm ñeel na leen jërëjëf macha allah <laughs>